internautes yu seen teranga TV amati mbégte ak kontaante ànd ak yéen tey ñu daal di wàcc sur le terrain fas yéenee waxtaanee projet de loi bi nga xamante ni moo ñeel amnistie général bi nga xamante ni njiitu réew mi président de la république Macky Sall daal di na koy yóbbu ca péncu ndaw réew ma ngir mu daal di effacer lépp loo xamante ni nag ab manifestation la bu amoon ci février 2021 jàpp février 2024 gile lépp lu ci ñàkkoon seen bakkan waaye dégâts matériels ak li nga xamante ni dañ doon fitna ñu daal di koy nuyulal bu mel ni nag mosutula am ci diwaanu Sénégal projet de loi amnistie boobee sénégalais yu ci bari daal di nañ ciy waroo ci gis-gis bu ñenn ñi jàppee ni jàmm la ñu war a suuxat ci Sénégal nañu daal di dugal projet de loi boobee validé ko ca pencu ndaw réew ma ña ca des ne projet de loi boobee warta jàll li ñuy sàkku mooy ay jugement ngir ñu mën a amal ab atte xam seeni doom ana ñan ñoo leen boom ca manifestation ya kàddu yi waraloona waaye dañuy daal di wëral yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askanuk Sénégal ciy joxe li nga xamante ne moom moo di seen point de vue ci projet de loi ñeel amnistie boobee. loi d'amnistie bi nga xamante ne ñu ngi koy woote daal ne dañuy effacer lépp loo xamante ne fitna bu fi juddu woon fii ci diiwaanuk Sénégal la tey am ñu ci ñàkk seeni bakkan ñu war leen a àtte xam ana kan moo def ak ku deful loolu yëpp ñu bëgg kaa jël nuylal ko en tant que sénégalais loolu ban gis-gis nga ci am. donc man moom personnellement rafetlu ma ko parce que tey je peux dire que tey suñuy rakk suñuy mag ñoo ñoo ñoo fi ñàkk seen bakkan. et je peux concevoir Sénégal bi ñu nekk ñu ni Sénégalu jàmm la Sénégal trang la tu vois euh, ñu ñàkk fi ay ay ay millions je peux dire parce que soo compté année yi actuellement bari na tu vois ñu bëgg a jël loolu yëpp duñ ko aatee maanaam remettre à zéro man je pense que ni loolu c'est anormal quoi franchement parler euh, pour man sama xalaat yoon la woon euh, ñu xool ñiy def lool ñu sanctionné leen quoi c'est-à-dire ñu teg ay daan seen kaw du coup prochainement. je peux dire que ñu bari dinañ veiller si loolu quoi c'est-à-dire dina leen servir leçon mais euh, bu fekkee nañ jël lépp bon ñu ni dañ koy remettre à zéro ah je me damay demandé ban Sénégal lañ nekk actuellement quoi. kon yow su ma la déggee bu baax d'accord ci loi d'amnistie bi. non non je suis pas d'accord franchement man moom d'accord moom. ah ni ma ko gisee mooy loi bi moom ah wax dëgg neex yàlla waruñu ko waruñu ko jaa warul jàll quoi pour man loi bi jëruñu koy voter essayer comprendre. mboolem kuñ si rey ak lépp lu si mën di xew nañ def enquête mu leer nañ ñu lijjanti affaire yi euh, nu mu demee ko ñu mën a xam lii mënul ñëw ni rek mu jàlle ni mu jeexe nii c'est pas normal nan leeral affaire ba mu leer nañ depuis 2021 ba léegi sal sal bureau yi ñu fi nekkee ak lépp lu ñu fi mës a def essayé comprendre nañ ko leeral ba mu leer waaw loolu laa am lu may wax nag dem d'amnistie bi buñ ko defee kii di Ousmane Sonko mën naa jotaat lii di éligibilité mu ngir mën a nekk candidat tey jii nii gisuloo ni Sonko moo ciy gën a wu ka ñi nekk ci parti au pouvoir. Sonko soxlawul loi d'amnistie so soxla Sonko tooñul si dëgg la nekk li ñuy li ko def ni jab jaay doole la. essayant comprendre Sonko soxlawul amnistie amul Sonko dilul dilaanul waxtaanul deful dara moom ma fa mu nekkoon démb ma fa. loi d'amnistie bi suñ ko defee ngir bëgg jaamu dellu si waat Sénégal ñu fàtte lépp dundaat li nga xamante ne moom moo di un Sénégal nouveau nekkul ni mooy li noonu non non nekkul li gën de yow loo bëgg depuis mars li fi amoon ba léegi rek ñu xëy suba effacé loolu lépp mu jeex ko yow yow bu doon yow noonu ngay def léegi loolu fekk leeraluñ lii bu beneen yoonee keneen ku fi ñëw day defaat même chose rek essayant comprendre képp ku fi defloon la war a def nañ leeral yëpp ku si nekk ñu teg si yoon mu jeex tàkk incha allah